avant tout et euh, voilà, juste vous donner euh, rien à Je pense qu'aujourd'hui, l'efficacité est dommage pour nous. Seba. Boy, boy pilong ka po ng simbal. Ha? Pilong ka po ng simbal. Wow. Tama. Wah, bilong ka po ng simbal. Bilong ka po ng simbal. Ah, ah. Tama, nakachat. Nakachat. Until the home point, one from Brazil, celebrate my Yaki, Nakata, and the hospital. Okay, naka la yow. sant. waaw bon di leen di leen di leen. waaw déception déception bu lañ que voilà comme seetaan de de gagner match. mais après voilà ci ay détails yu ndaw ngay perte match bi manque de concentration. la capacité loolu la quoi waaw waaw si loolu noonu gën ko liggéey mën a jublu seen i séance incha allah. waaye on est prêt pour euh, comme je l'ai dit foofu am na yoo xamante ne war nañu ko gën a mën a travailler mën si egg à. bon tey nekk sa première prestation ci équipe nationale A tey nan nga dundee situation bi ban appréciation nga si am. bon fu mu toll nii am na positif am na positif mooy def naa sama jiw alhamdulilah ak équipe nationale bi loolu nekkoon sama rêve bi négatif bi mooy malheureusement jël nañ défaite première défaite ci Guéwé depuis neuf mois je pense ñu ngi doon permettre match bi ñëpp gis nañ waroon waruñu ko perte mais malheureusement perte donc li gën a am important mooy ñu jëm suñu yi ñu def après ñu moo la gën a marqué am Lamine Camara nekk à l'équipe nationale surtout nga fekk say grand ci biir ñu jël la dugal la coach Aliou Cissé am confiance. waaw waaw dara dara ma gis am na ay cadre am na ay conseillers tout euh, depuis entraînement ba fi tey jii mooy conseillers su ma duggee si terrain ñëpp gis nañ bu ma duggee si terrain ñëpp dañ ma doon jege di ma jox ay conseils kon daal alhamdulilah am yi yoo xamante ne dañuy focus seen petit. d'accord lan ngay wax yi bi nga duggee bi nga yaa ngi fi di leen gërëm rek ak di leen naan li mën a promettre mooy di def di continuer def rek gën leen góorgóorlu te incha allah nañ continuer. pousser équipe bi lii match amical la nga bëri ko war nañu ko am faire mais football la quoi loolu la ñu football. histoire histoire de numéro bi numéro nekk ci ci Ghana. c'est une légende tamit. Euh, Ghana Ghana. waaye ah, c'est nekk pour euh, vraiment nekk. numéro 5 bi ñëpp xam nañu ñoom ñoo ko def dara boobu nag te Ghana légende si équipe su ma bëggee su ma naree succès si moom faa ma def euh, prestation yi gën a gën a gën a gën a élevé donc euh, fu mu toll nii moom si man la def gën a dem si club yi gën a yokk performance yi la moom mooy yoon la incha allah. waaw sama ñaar dëkk maa ngi nuyu ñëpp ci lu si man gis naa sur ton premier but sous les couleurs de l'Algérie Franchement, c'est une fierté, c'est une fierté. J'avais mis, euh, pour mon premier match, j'avais mis deux buts déjà qui étaient refusés, refusés injustement. Euh, c'est pas grave, aujourd'hui c'était un gros match, malgré de faire un gros match contre une grosse équipe, c'est les champions en titre, donc euh, ils ont le titre de meilleure équipe d'Afrique pour l'instant. Et... Ouais, euh, le but, c'est quelque chose qui est, qui est venu comme ça, c'était un détail parmi, ils parmi ont, tant d'autres. Mais... Ils n'ont jamais perdu dans leur stade, on vient, on les bat, c'est une fierté spéciale ou pas c'est toujours quelque chose de gagner contre le Sénégal. Comme j'ai dit, les, en ce moment, c'est la plus forte équipe d'Afrique, dû à leur titre, parce qu'ils sont champions d'Afrique. Et euh, de venir ici et gagner, ça, pour nous, c'est plus un. On se rassure un peu plus parce qu'on sait qu'on peut toujours euh, rivaliser contre, contre les grandes nations, vu qu'on est une grande nation et pour montrer aussi aux autres qu'on est toujours là. Tu viens d'arriver dans cette équipe d'Algérie, on a l'impression que tu es déjà un ancien. Parle-nous de ton intégration, comment tu l'expliques euh, tous, ceux qui étaient déjà là, les cadres, euh, Rami, Riyad, Isma, nous on, on, on, on tous même Aïssa, on est tous bien intégrés. Ah, même moi, même Bal, c'est pareil. On a un petit groupe de nouveaux qui, qui arrive en même temps. Franchement, ils nous ont intégrés comme si on était leur, leur petit frère. J'espère que ça se voit sur le terrain. Tu joues à gauche, ailier gauche, tu joues dans le cœur du jeu. On, on te voit jouer dans différents postes. Tu es, es, à l'aise. Où est-ce que tu te sens plus à l'aise Est-ce que tu, tu, peux nous dire un mot sur ton positionnement Je suis formé au milieu de terrain. Après, ma première année professionnelle, c'était l'année dernière. Et j'ai plus joué à gauche, c'est sûr. Mais Mais comme je dis, comme je dis souvent, je peux jouer un peu partout. Moi, je me joue où le coach me demande, me demande de jouer et je donne tout ce que j'ai. Un mot sur la confiance que te donne Jamel Belmadi, justement, il t'aligne. Euh, on sent qu'il a vraiment confiance en toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la confiance que te donne Jamel Belmadi non, franchement, ça, ça, fait plaisir. Ça fait plaisir. Que, ça fait toujours plaisir de savoir que Simani, c'est qu'il a confiance en moi et et j'essaie de donner pour le rendre sur le au niveau des crampes à la fin, t'étais convaincu, t'étais rincé J'avais pas de crampes, mais vu que la fin, c'était la fin euh, et que j'étais KO, j'avais un, un, de faire le pressing. Donc pas de crampes, je pouvais continuer, mais ça sert à de continuer à 20%. C'est mieux de faire rentrer quelqu'un qui est à 100% pour essayer de gagner le match. Bravo Faras